waxee Luc Nicolaï dafa dugg xaw ma ak makan ngeen wax waaw ah, loolu njarndeem la de nu mu demee tubaakaay ji ma gën xam ni mu ngay fi di ak sa baylaat bu ñuul bi ya, ma gën a xam ni mu demee lépp <laughs> barke Serigne barke Serigne Saliou loolu daf ma raw bilaay bilaay daf ma raw yàlla xam na mais mais mais tafakaan ji tafakaan ji fi làmb toll fi làmb toll mm-hmm. euh, dama bëgg ñu waxtaan ji bi boy ñang di jël Modou Lo jóge ci victoire bu toll ni Balla Gaye numéro Tapha Kandji boobu bu ngeen koy jël boobu bëreeg Modou bu nekk roi des arènes tax. waaw Faram. Mhm. xam nga bi ñuy taxawal suñu combat ak Balla Gaye numéro xam nga Balla dafa nekkut roi des arènes ci période yooyu. Mhm. loolu moo tax tuddeewuñ ko combat royal. Mhm. bi dox suñu combat ak Modou Lo dafa tombé ak yàlla def Modou Lo nekk roi des arènes. Mhm. donc kon loolu combat royal lañ ko mën a tuddee. loolu la loolu wax. mais defuñu ñun fixation ci Modou Lo roi des arènes la ñuy wala Modou Lo boo xamante ni bu fa Ama Baldé daanee ba pare duñ bëree moom. ñun amuñu bul tudd bul tudd bul kañ man man man boo Niang daa ci victoire mënoon a bëri ku nekk lamb. ndax Bombardier waaw ku bokkut ak Modou ndax Bombardier ak ñeneen ak ñeneen dañoo nekk ci lamb non Bombardier Bombardier mais am ay mbëri nekk ci lamb yu boo ñaa war a comme kan ak kan yu bokkut ak Modou comme kan ak kan amul kenn ku bëri ku ak non kan kan, am xam nga xam nga li ci lamb Boy Boy mais giri booba fekk nañu taxawal combat ak ama waaw mais comme tey ji li ma bëgg wax ne Modou Lo ressource ci lamb xanaa mais booy ñang lu mu ñàkk ñàkk ñàkk am na adversaire bu war a ci lamb wala mu taxaw xaar ak victoire ndax bu toggee victoire est ce que mën naa taxaw xaar ko waaw waaw léegi bu jël Ama bu bu jël li ci ay dynamique de victoire ci yor titre roi tax combat bi makan da leen waxoon da ngeen koy bëri ci saison ngeen ko la wax makan loolu la wax bi mu duggee Tapha Kandji ji yow ñun ñun làmb. Ah, damay laaj non ma tamit la wax mo makan daa wax loolu. <laughs> Ah, bëgg a dégg. ndax moom moo ko wax wala yow ci xool ci sa ay source ko for ci weewu nag ndax Modou Lo mm-hmm. biñ koy dox ak Boy Niang Tapha Kandji ji lii yaa ma ko gën a xam Modou Lo biñ koy dox ak Boy Niang li taxoon sen combat yéex ñi nan taxaw na ñi nan taxaw ndax Modou mo proposer proposé woon ne su ma Boy ñang jëluma ko combat bo xam dama koy de déwén combat bu may bëri ren la lolu amna wala mu barki seigne touba lolu loolu leeru moom Modou Lo lu neewé ci ak makam yalla xam na wallahi wala gi ñewul ñëwal ñëwal dag ma min ba nga xamante ni su ma sérieux sax do nangu ne dama sérieux loolu mooy problème du quoi mais mais léegi léegi comme tay ji sànq dama dégg makan meng ne combat boo ñaam lo sax mënuñ koo génne sénégal ah loolu la makan wax waaw ah, makan da xam nga mom moy promoteur bi ñun mom makan rek lañuy top li gars yi def uh-huh. <laughs> ah makan rek lañuy top ñun <laughs> mais combat bu buñ ko bëree ren arrangé na leen lépp arrangé nañu lu bëri rek ren dama ne lépp arrangé nañu bu ko xon bu ñu waree ba mu am une semaine ñu bëri. seen digganteeg mu loo. bilaay walaay pour affaire pare ñàkk pare ngay xalaat. waaw. non. mag ñi dañ ne soccet balaa maanaam balaa ñu naan soccet na tëb fekk na mu jatu bu yàgg xam nga jatu. moom mu lëf ay tànkam nii. mu ngoog dégg nga ma démb. <laughs> non ah mais Tapha mais nag Tapha Kandji Tapha Kandji lan moo tax yow Modou Lo choisir ci kalkinu Modou Lo yëpp ci kalkinu Modou Lo yëpp ci kalkinu Modou Lo yëpp lan moo tax Modou Lo choisir bëreeg Boy dafa jàpp ne Boy Niang moo gën a yomb wala su ma ñëwee Boy Niang du ma diriger maa koy diriger tey jii ni Modou Lo amee choix ci Boy Niang yow loolu jaaxul la. déedéet dara jaaxalu ma ci ndax xam nga tax xam nga lu loolu dama koy bëgg a miin ci booy Niang ndax xam nga lu tax. waaw maa ngi nuyu maa ngi nuyu Abdou Kassé Saaka Joor maa ngi koy nuyu bu baax. waaw dégg naa xeer yi ma fi sànni yëpp nag. Mm-hmm. waaye la moo tax ma ne la loolu jaaxaluma mooy Saaka Joor keroog bi ñuy bëreeg moom. Mm-hmm. Sakho Dior danañu woon ñun làmb boolewuñu xaalis dong moo ñu boole. walaay wax na dëgg loolu la waxoon. waaw loolu la waxoon te après bañ taxalikoo la ca xew-xew ca. Balla Gaye numéro 2 bi muy bëreeg moom. nga mën a palmarès boolewuñu dara boolewuñu te bu tëddeen di nelaw mënuñu koo yee. dëgg la loolu la Balla waxoon bañ fa jógee bañ la ca xew-xew ca. donc su Modou Lo ñëwee. moom tamit yaakaar loolu wala mu wax loolu dafa jaar fa ay moroomam jaaroon rek waaye loolu garaawul. Hmm? ah mais loolu loolu loolu garaawul ñun ragaluñ loolu faram. Tafakanji waaw. Tafakanji Modou Lo loolu war a zaren. waaw champion la de. mais moom ndax jàppul ne bëreeg booy ñang moo gën a yomb ci carrière am. xam nga man fi mu ne nii may wax ak yow. Mm-hmm. su ma neexee man naa jàpp ne bëreeg Modou moo gën a yomb bëreeg Bombardier. lu tax. non dama ne mën naa koo jàpp. loolu man la concerne waaw man lu tax lu tax nga jàpp ne. non non non. booy ñag bëreeg Modou Lo moo gën a yomb mu jëreeg bëreeg Bombardier. laaj nga Modou Lo lu tax mu jàpp ne bëreeg booy ñag moo gën a yomb laaj mais man ci an li ma jàngat mooy dama jàpp ne boo Niang Modou mu boo Niang Modou Lo bërik Boy Niang moo gën a arrangé ndax Modou Lo boobaa muy diriger Boy Niang loolu la yaakaar ah yow moom li yaakaar wala yow li nga yaakaar. li Modou yaakaar laa la li Modou yaakaar. Modou Lo yaakaar ne su bis baa moom day diriger Boy na waaw. waaw mën naa nekk mën naa bañ a nekk tamit mën na nekk comme mën na bañ nekk. mais ndax Modou Lo damaa seetlu ne Modou Lo ñi ko diriger ci làmb ñëpp dalee na daan ñi ko diriger ci làmb ñëpp dañ ko daan ñim diriger ñëpp dalee na daan. xam nga xam nga léeg-léeg sa laaj lu tax sawaru lu tax may bëgg di seetaan rek da ngay bëgg ma bëri combat bi te lamb ji ak seegul non mais nag mais nag sama kanji lu lamb lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm ñëpp xam nañ ma ne nu Modou Lo ci lamb Modou Lo ñu mës a diriger ki lamb ñëpp dale na du ma daan leen ñi ko diriger ki lamb ñëpp dañ ko daan amul benn mbër mbër bu diriger Modou Lo te daanoo ko te Modou Lo dafa jàpp ne boo ñëw bu bëree moom li am ci lamb yëpp Modou Lo koy def Saafi Joor daal am na benn wax bu mu wax gars yi dañ ciy bàyyi xel. mooy lan. waxoon a ko waa kër Balla Gaye waaye bàyyi wuñ waaye bu ngeen duggee ba biir géew bi ah nga xam ne am nga combat de may sa xarit mi bu doy foo de fi ne nii moom fi mu ne nii nii nii may wax ak yow moom amul roi des arènes amul ex roi des arènes. mais compte bi ma ci live bi compte compte bi ma seen ci live bi daf mel ni moom la. <laughs> gisu ko de benn compte <laughs> eh, eh, eh. am na beneen compte. bu ma compte non man man am na beneen compte man. ah yow yow ah, daanaan nga ah, ah, am na beneen compte mais mais mais tey jii man tey jii lan mooy sama problème lenn mooy sama problème. lenn mooy sama problème. Mhm. Mhm. mbër yu bëri dañuy am ñang te dafa mel ni des nañoo xam Boy Niang mhm. ndax li ñuy gis ci moom mooy Boy Niang baree bëree bët. waaw waxal Fara waxal. ma ne mbëri bëri dañuy bëgg a bëri Boy ndax Modou Lo bu tëggee titre roi des arènes sànq dafa am benn booy bu jege Modou Lo bu dugg ci live bi. kan Libaas. Libaas. sama nabi nga ko. dégg naa ca feebar de dafa mel ni dégg naa daal li mu wax rek daal di dégg naa ko. dana bu Sénégal yi nëbbante liñ bëgg a wax. Modou Lo Boy Niang lay bëril. ñi gën a. la Libaas wax. barki Serigne Babacar si wax Modou Lo Boy Niang lay bëril. Libaas moo génn te Libaas ñëpp xam nañ ko ci Modou. bu Libaas du gisee ne Modou boo Boy Niang lay bëril dafa mel ni Modou Lo estafam gëmuñ ne war na bëri ak Ama Baldé lu ñu gëm mooy Modou ak boo Niang numéro 2. sawuñu sax bàyyiwuñ ci sa xel gis naa ko mel ni ko su jabong saa yu dugg si ba boo tuddee Ama day day mu fiyewu day bañ loox mu ne Boy rek dafa mel ni ñoom daan Boy Niang daal la gën daal ci làmb loolu lañ jàpp. li daal mooy que ça soit Ama wala Boy Niang njëkk a bëreeg moom ñun daal civil bi mooy ñun nañ daan Modou Lo rek Modou daal nañ ko daan rek léegi nag ñoom ñoom libaas libaas ñoom ak waa xare ñoom am nañ droit am ñoom wax ñoom loolu ñoom la concerné waaye man Tapha Kandji man Tapha Kandji en tant que Tapha Kandji li nga xamante ni man man man moo ma soxal mooy ñun nan daan Modou Lo rek na bëreeg Ama Balde ba pare bëreeg Boy Niang on est preneur na bëreeg Boy ba pare bëreeg Ama Balde amul problème l'essentiel que ne mooy Modou Lo bu mu dugg Pikine génnaat fa ak titre roi des arènes rek na nga fa bàyyi rek dégg nga maam. ba léegi tontu bi dégg guma ko de li nga war a tontu dégg dégg guma ko. lu ma war a tontu bëgg ma tontu. li Tapha Kandji li lan moo tax Modou Lo am envie bëreeg Boy Niang numéro 2 te yaa fay jàpp ne daan Boy Niang moo gën a yomb. waaw Fadam fi ne nii xam nga nag xam nga. xam nga Fadam mais Tapha Kandji combat bu xëyee ñu ne la dans trois mois la bu la bett. ndax Makan Mbengue bi tëgg combat Modou Lo Boy Niang ay pexeem yëpp yëpp mooy mu mën a dëgg combat bi ren. xam nga pataas ma gënal pombiteer bu ñu la si yóbbee tribunal rek sa avocat baaxul. waaw waaw surtout surtout surtout. Modou Modou waaw Modou am na droit mu jàpp ne peut-être bëreeg booy ñaa moo gën a yomb bëreeg Ama Baldé mais am na ci droit loolu boo ci xulóog moom da koy tooñ mais xam nga léeg-léeg da yaakaar ak lii am du benn mais loolu nag balaa ñu koy mën a xam il faut ñu toppali ñu tampaloo ba tàqalikoo mais Tapha Kandji dafa mel ni da nga jàpp ne Boy Niang baax ci Modou Lo. waaw man nag su ma la waxee rek. Mhm. man gëm-gëm ma am mooy gëm-gëm ma am personnellement en plus loolu man la engagé mooy dama gëm ne non Modou arbitre moo ko ko ci waaw waaw mhm. waaw sama gëm-gëm nga ma laaj. loolu foo ko teg ci qualité yi Boy Niang am mën a xeexu Boy Niang mën a bëreem fan teg loolu. waaw waaw foofu laa ko teg mën a mën a bëre Boy Niang ak gëm-gëmu Boy Niang ak xam li Modou Lo di bañ. mais dama gis dama gis fan yi Boy xaw a wàññi xaw a dindi poids bi tuuti lu waral loolu. dafa Tafa Kanji man nga waxal de man xam ko ya xam naa ko gëdë gis Tafa Njaay Tafa Kanji man Tafa Njaay Tafa Kanji lan mo tax boy ñang wàññi poids tuti pour xaw a migrer tuuti lan mo tax loolu non mais xamal koor gi nak param fi mu ne nii ñëpp non non waxuma la koor gi de Tafa ji boy ñang entraînement yi mu entraîné dafa wañu poids lu tax loolu lan mo tax boy ñaa gëna wañu poids am fan gis bi mu bëri ak dafa ko bëri ci mass muscle mais muscle bi mu bëri won ak Balla gi da ko dindi bam set du toll xam nga def day xam nga des fois li ngay gis ci mooy da mën naa du wax gis xam nga nit xam nga nit mën nga di ko xool am benn appréciation ci moom du bokk ak yow appréciation bi ngay am ci moom yow param yow mi koy mais man man pour man man dama gis ne li mu yor mi c'est normal xam nga actuellement nag comme dañ jugee ci combat te combat bi dafa metti mais bi te combat bi bi nga jugee ci combat bi tegoo say entraînement yaa ngi entraîné waaw waaw waaw yaa ngi entraîné boo ñaam bu ngi entraîné te Boy Niang ah, ñu ngi am ñu ngi am information fu mi entraîner na mi entraîner yépp ñu ngi koy am mais dañoo gis ne Boy dafa préférer dindi yaram bi nekkoon ci yaram ci ci ci ci ci muscle bi daal di moom boppam lu war loolu ndax modlo Lo koy pare da ngaa war a mobile mobilité bi da ngeen ko soxla ci seen diggante ak modlo Lo wala. <laughs> barke Serigne Bamba suma la bëggul rek yow lu wala xadu bëggam dama la bëgg. <laughs> <laughs> non non Cheikh xam nga nag euh, Cheikh xam nga booy ñaan ak Fadam. Mm-hmm. yow mi ko xam xam nga ne mobilité moom ci moom la nekk loolu bi mu duggee ci làmb ba tay mm-hmm. loolu moom ci moom la nekk quoi macha allah yàlla suñu borom moo ko bindaale mobilité boobu ngay wax non Modou Lo sooy moom am na leneen loo soxla lu dul loolu. non mais il faut nga coriace coriace bi moom par force la mais mobilité bi ak déplacement yi il faut moom sa bopp. non loolu moom ci macha allah déplacement ak ay mobilité moom loolu moom garaaw. moo tax ngeen moo ngeen moo ngeen raxas poids bi bi ngeen bëré won ak Balla Gaye non raxas poids bi da nopp lu kay la rek dafa non non bu lu won day gën am yaram mais Tapha Kadji Modou Lo Boy Niang mu ngi entraîné mais ah? mais am na benn point bu ma la bëgg laaj ma mën na ma dina ci mëna a waaw waaw di ko mëna a lan moo tax lan moo tax ngeen dem lan moo tax ngeen euh, ngeen jël Modou Lo rek walu xex bi ngeen dem changer ci lu bare bare bare bare lu tax lool dégguma course bi ngeen préparé wu ci wàllu xeex mu ngeen génn ci Balla Gaye de rek Boy Niang préparé ji xeex chaque jour di xeex chaque jour lu waral loolu. ku muy xeexal ku la booy naa dafa commencé préparé xeex ku am naa information bu leer Boy Niang mu préparé ci xeex lu bari. lan la dafa dem liir ji xeexu Modou Lo pour mën ko rectifier wala. no non gars yi dañ lay non non gars yi. Boy Niang course bi mi bu koy préparer ci walu xex bu dii tollu li tax mu tax ngeen jël ko tax bu ngeen ko jëlé da ngeen bëgg xex bi mu Lo xex bu désorné bi mu Lo do xex da ngeen bëgg Boy Niang pour mu mën ko ci limité wala lan la loolu nga may wax nonu bu suba dina ci def ay gëstu laaj ko ba xam ndax dafa am course bu bees bu koy jangal mais Boy Niang ci laaj bi kay neeku mu dugg man na non Boy la neeku ci laaj bi yàlla xam na ci laaj ya man mais tafaakaa ji la moo tax boo mais boo ñang mu ngi préparé booy nag non fi mu ne nii nag moom day kii rek fi mu ne day raay rek day raay xam nga combat boo xamagut kañ la combat boo xamante ni fi mu ne nii xamoo ndax genre xamoo kañ lay am mais looloo tax boo ñang nekk ci combat bi cent pour cent combat bi moom combat bi nekk guñu ci sax voilà combat bi sax nekk guñu ci à cent pour cent mais Babacar arbitre yóbbante na ma ci yow Babacar arbitre. man mi waaw Babacar. <laughs> loolu la. Babacar nee na. Eh. paa bi paa bi ngeen ci cimikaay li ba léegi moo ko jaaxal. <laughs> Babacar Babacar yàgg naa gis ay paa di ñëw ci cimikaay na bàyyi suñu paa bi. Babacar nee na paa bi mu gis contre Balla Gaye numéro 2. ma wax ma ko de démb ñoo defandoo émission Gris Bordeaux bi ak Mango ak Asbekaay waaye nee na ma paa bi. paa bi mu gis nga lëng ko dugg moom ci biir géew bi. bi yaa ngi na ñëw yaa ngi na ñëw. combat booy ñëw la première fois mu ñëw combat booy ñëw ci booy ñëw. eh kañ paa boobu indi ci biir làmb ja tam soloon wiise bi góoru bay fal googu lëmbe na arène nationale. ci booy ñëw yàgg naa ñëw yaa ko seetlu wut rek. mën naa kaa wàcc yàlla te xam nga li ma lay wax dafa kaa ji booy wax loo xam ne nii dëgg dama seetlu leen sooy wax loo xam ne lu nekk ci yow la su ma la posé question ñaari yoon rek da ngay war ci Serigne Saliou ah déet déet waat waat bi sax dama ko bëgg a bàyyi di waat waaye góor googu non góor googu nag gëm naa ku dee ci làmb moo lay rey déedéet mo bala gay bala gay doole ju bari lañ ko indi non bala gay doole ko daan ak bëri mais bala gay bala gay indi nga ko doole ju bari waaye dem na ba ci digg bu nooyee waaw Balla Gaye nee naa ko xanaa xamoo kanji kanji yi dañ laa de. déedéet dañ ko noyyi loo. déedéet ba ci bi di étiré. Eh, xool na Tapha Kandji bi mu dugg see ci géej bi xool na la. dégg nga ne Balla Gaye xool na Tapha Kandji xool na la ndax ci a xool la. la na ma ko loo xam Ama Baldé tooñkat la. tooñ xam naa ci leen de xam naa ci leen de. Hmm. lamb daal lamb daal lamb daal lamb daal bés la. mais waaw Fadam nag euh, gis nga lamb moom soo bëggee dégg dëgg. Sakho Dior dafa dafa wax ci yéen lu am solo nee na da ko wax bu ko ci laaj bi Sakho Dior numéro dama ko dalal démb mu ne ma Fadam mu ne ma mu ne ma Boy Niang bëri na mbër yi koy jil ci làmb boo xoolee ni muy bëree doo ko nawlu waaye boo ko fekkee ci biir géew rek dina dem ba lu bëri lu nekkoon te du ko dindi loolu loolu tubaakaan bi booy ñu ngi ci biir ñu ci biir géewu làmb. waaw Cheikh booy nag Fadam day mbër moo xamante ni man ci li xam ci moom ci biir géewu làmb mooy li liy topp ci ginnaawam dafa bari quoi. Mm-hmm. après booy ñang dafa am benn charge bu diis bu nekk ci ginnaawam moo tax saabu daanoo rek affaire bi day metti comprendre

non non parce que détermination bi kañ eh eh bul war wax ji ndomba Sakka Dior nee na Boy Niang numéro 2 yëg na ci moom loo xam ne nii te bi mu koy expliqué ci bi muy analyser combat Balla Gaye 2 fii ci live Instagram bi waxtaan na ci ak waa kër Balla Gaye 2 mais waa Balla Gaye 2 digguñ ko. Sakka fu mu waxee moom. non. nee na bëri ba doy na sëkk xeex ba doy na sëkk waaye ngemb gaa ko doole. non <laughs> nee na ma nee ma ndax xam nga tabaakaay ji ma ne ko waaw bu ne oh, oh, lu ma dal ci lam moom ko teg. yàlla xam na ne yàlla xam na ne loolu saaga jooju war na ma ko baalu loolu loolu war nga wax saaga jooju ne ko tabaakaay ji <laughs> nee na loolu il faut mu retiré ko baalu ma non faram faram mm-hmm. suñu borom mooy def tafakaan ji moom la waa Instagram miin ci ñuy ànd ak booy ñang mm-hmm. man la yàlla dogal ma nekk au devant de la scène loolu yàlla moo ko def mënu ma dara ñu xam ma donc fi mhm. ñuy wax booy ñangi rek après dañuy wax Tapha Kandji mais Fadam xoolal affaire yi Fadam bu dee dix maanaam man yoruma ci sax un maanaam man naa am man genn wàll man laa ci man Tapha bu subaa bu subaa dinaa publier benn vidéo Instagram hmm. combat Balla Gaye numéro de Boy Niang bi ngeen dugg see stade bi ngeen dugg Boy Niang dafa tegg tànkam taxaw nga romb ko dugg ci biir géew bi alors loo bëgg a la fa am lépp am naa ko mën naa ko dugal ma bi leen bëggee ma publier ko bu subaa ma publier ko non mais loolu dara faram baal yooyu quoi gina kii mi ngi la koy wax <laughs> mais Boy Niang nga mayal waa laa bi Samba yaa nga bu sax param doom kii dooyu mu daa juuf la Samba yaa ngaan njaay kooku ko war a faq yéen bi bëgg a dee Samba yaa ne ngaan laale baaxu góor la teel nii bilaay doom yaay lakk dem na ko ne yaay mbëri peleen bàgg woon na mbaam fële yaay lakk dem na ko ne yaay mbëri préparé leen bàggoon mbaam fëyee sukki day leen mm-hmm. gaynde mel la fano duma tay di la jiiñ ñu sagal ay dama la bëgg lool yaa rafet jikko xaw ma dang dañ la ko yare kanji yaa rafet jikko fadam siyaar nañ la siyaar nañ la moom fii si yow boobu dañ laa war duma waaw bilaay sa sa bàyyi la dudd yaaykat yi fekkoon Demba Diop ne ko bu ñu demee ba gis tuuti mën nañ ko jàpp. loolu dëgg la Moussa Diouf sa papa ndaanaan la sa woyli woyli la. dëgg la yow boo woo boo woyut dañoo war a fàq yar dóor la ba ngay bëgg a dee. bilaay ndax sa papa ndaanaan la garmi la booy boo gëmee woy di nga mel ni Wally Seck de. lii ma dégg nii te du déggoo waaw li nga dégg macha allah. incha allah waaw chaque jour loolu. chaque jour loolu laa koy wax mais xam nga booy dañ doy waar. non booy bi li li bërit bi mu def nii bërit bi mu def nii man ken mënu maa nax ci làmb waaye kenn mënu nax ci ay way déedéet way li way li nga yow tamit damaa dem damaa seetaani ndongoloo jëm jaaj la jaaj fal ma sax man dene fal alkaar ak dem ba mu réglé ci mbapat ci micro waaye xale bi lii mu woy nii lii mu woy nii démb la waaw ko tuuti mu dolli ci leneen yaay mba ba le yaay yaay mbaba janine bu la sa doom tooñe dumal yaayoon géeju mbalaan we yaay mbaba janine ay yaay mbaba janine loolu loolu daan naa dégg paap Ndiaye du mbuub di ko way waaw loolu loolu loolu am na refrain am na lépp way wu doy waar nga way yaay mbaba janine loolu waaye am nga leneen loo xam ne sa papa di koy dégg mu koy way te muy ban ñëwal dạ, ừ. dạ. dạ. na ñëw moom xam na ko damaatal ma ko tey yaa ngi ci laayu Fadam ñëpp a ngi lay seetaan dama la dama la dama la bëgg sëgg jooy ngañ waalo rima samaan ngañ waalo ngañ sëgg na jooy ngañ waalo Fadam ñëw na woo naa la man Tafa Kanji ñëw naa yi woo naa la damala la la dama la bëgg sëgg naa sëgg jooy ngañ waalo. kontaan naa fii kontaan naa loolu Tapha Kandji jox sama numéro nag nga def ma signe WhatsApp. <laughs> kontaan naa Tapha Kandji. mais Fadam la 14. waaw damay def ay ndogu fii ci Medina rue 19. waaw rue 19. ànd la 14 vendredi prochain bii di ñëw bis topp. jeex na yow loolu dinaa ci ñëw. sama doom nga jeex na jeex na jox ma ta jox ma alaaji Tapha Kandji Tapha Kandji fi may tàggoo ak yow rek. waaw Tapha Kandji dama la bëgg laaj. booy naa la kilambu, de. Tapha Kandji. non ndog yi dinañ ci. Tapha Kandji. waaw waaw ci làmb ci làmb ci làmb. yéen ñett xale ngay ñett ngay ñett ñett ngay ci di gis ci numéro ay waaw. ñaabu ndaw pii ñaabu ndaw waaw hmm, deuxièmement mm-hmm. c'est que caatu daa am na fu mu xaw a niroo booy ñaa mais am na koo xamante ni bokkuñ fa ici mm-hmm. ndax risque ba risque bi jël ci làmb waaw waaw waaw waaw caatu daa dafa dafa ñemee risque quoi mais nag gis naa ne mi ngi commencé di màgg tuuti tuuti ci làmb parce que risque bi jëloon ci Kaaw Gourdin bi mu amaatee beneen combat ak ki dëkk Tëngéej ak ki mujjee daan gis nañ ne teg na ko ci yoon. Mm-hmm. Mm-hmm. donc donc man su ma doon jël en premier pol daal damay jël ñaabu euh, ndaw parce que ñaabu ndaw moom dafa jël ñaabu ndaw moom dafa copi collé la ci néew bi ci déplacement mm-hmm. nag après après bu caatu daa dofal jàllee ñaabu ndaw jàll gars ñu ngi wax ay Jackson. te eh, xam nga faram booy naa exil bi muy bëree dafa xaw a doy waar. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bi muy bëree dafa xaw a doy waar xam nga faram eh, léeg-léeg ma dégg gars yu bëri na booy naa il est trop défensif. waaw yow mi topp booy naa ci ba wala mi nga xam ne ma booy naa défensif. xam nga booy ñang xam nga booy ñang ñett yi dafa nekk ci moom. daa am loo xam ne bu mbër taxawee. daa am bu mbër taxawee noo xam bu ko mbër taxawee. Mhm. day bëreeg yow ci wet. Mhm. daa am bu noo xam ne bu ko mbër taxawee pour booñam song la dox ta kaw day yomb ci moom. Mhm. ca position ba na mbër ma bëree rek ak na booñam di réagir du benn mais dafa am benn taxaw boo xam ne ñoom ñaar moog Ada Fass dañ ko niroo lool ci làmb. Ada waaw. Ah. Boy Niang Ada Fass tey bu fekkone ne jàngi ji na xeex comme niko ko Boy Niang jàngee mm-hmm. muy xeexee crochet droite bu dal dina bëri lu bëri lu niróo lekk ama Boy Niang numéro 2. Ada ndax ñom ñaar ñepp kuy ñew seen kaw lañ gëna mëne waye da am nu ñuy aborder combat pour lolu mëna am. ma ne Ada de mom Ada de mom champion la moom wax dëgg ñu ngi koy ñaanal yalla defal ko jamm mais boo naa ici booy naa mas naa am benn combat mu am kum koy bëreel peut-être du wax kan la doon bëreel. Mhm. ñu dem ba ci dernière kii bi bi ñuy takk ma ne ko ñëpp nee nañ nag diw danga koy songu donc kon attends-toi ne mi ngi xaar song bi mu ne ma mën nañ ko wax ne ko dama koy song mais problème bi muy am mooy du xam kañ laa koy song. kël mbiri <laughs> mu ne ma du ko xam dama Fadam bërikatu bopp la quoi. Fadam daal euh, na yàlla def jàmm daal xam nga kenn ku ci nekk nag vraiment ki nga xam rek nga mën a waxtaanee. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ki xam rek nga mën a wax. mais maa ngi nuyu Fadam mais grand koy nuyu bu baax mu ngi ci live. bi Gris 2 maa ngi koy nuyu bu baax. waa Gris 2 Maodo waa suñu sëriñ ñu ngi koy ziar. ñu ngi ma jaaxal de gars yi war nañu wax ci moom Maodo ndeysaan ci làmb la bokk sama kañ yi. Maodo bu fekkee ne Maodo bu fekkee ne libre nga ñu waxtaan benn dix minutes rek ndax da nga war a bëri Maodo mais Fadam Gris 2 nag Fadam xamoon nga ne bu ñu ba ci yàgg tuuti dina am problème adversaire lamb ji léegi Fadam dafa mm-hmm. vraiment tollu tollu gut foo xamante nii day bëgg toog ñaari at du bëri waaw métti na trop métti lamb la bokk de ah, ah gars yi war nañ koo jël de gars yi war nañ koo jël de ci làmb non Malick Niang bàyyi dama gis ku bind na na jël Malick Niang mais Malick Niang kat nee na na làmb ku bàyyi nag neexut a bëreel moo du daal mais gis nga mais gis nga faram mm-hmm. faram booy nag numéro de ci période bi nii nii nii nii mu toll nii ci làmb mm-hmm. bala koo mbër dig dara na bàyyi ba def ko ba pare mm-hmm. bala koo mbër dig dara na bàyyi ba def ko fa ba pare hmm? xam nga laa am nag léeg-léegi day xaw a na xaree waxee parce que xam nga ñun ñëpp ci suñ borom la ñuy wakiirlu mm-hmm. te moom moo yor lépp donc <laughs> mbër moom xam nga li nga mën mooy entraîner dem wuti gàllaaj ànd ak ñi nga war a àndal ñoo def fula ak fayda mm-hmm. waaye daan ak daanu mm-hmm. ci loxo suñu borom la nekk mais léegi mhm. mais léegi léegi mais léegi léegi nit dina dem ba am foo xamante ni daf fay toll ci biir carrière mhm. te loolu mbër yu bëree bëree bëri yow mën nga leen cee cité mhm. mooy bala nga koo def dara bàyyil ba bala nga koo dig dara bàyyil ba def ko ba pare barki sëñ Bamba Mbàkke bu ne rinkum ak Modou Lo ba ñu fekk booy moo bëgg ku mën a bëri te Modou Lo dafa mën a bëri comme Balla Gaye dafa mën a bëri hmm? mën a bëri xam naa leen de Malick Métraillé nee na dafay noppe <laughs> maa ngay jaar Malick xam naa ci léegi de añ kat dëgg ku toog la mën a bëgg ah, yow nag yaa añ kat dëgg waaw ku mën a toog rek la bëgg waaw ku mën a toog te mudlu mudlu mudlu saa yi ñëwee ci lamb rek bu toggee mu neex lool ndaanaan la waaw gili de bu fekkee mën ngaa bëgg rek def demande mhm. dañoo indi tafa boy bambara ñu lëng ko mu ñibbi waaw ñu indi papa sow ñu lëng ko mu ñibbi mhm. ñu indi bala diouf ñu lëng ko mu ñibbi mhm. ñu indi booy kay rek ñu lëng ko mu ñibbi état d'ordre su ma ko ma jeexal ma xel dem na ci Issa Pouye la ceek la kay ma di caare géej ca la fa bekaay doon wax Issa munoo daanu daaneel wallaay ndeysaan waaye dafa am loo xam ne nii dafa am loo xam ne nii dama jaaxal ci diggante Modou Lo ak Boy Niang dafa mhm. kanji combat bu combat bopp la combat bopp la ndax Modou Lo boo jëlee tànkam taxul làmbam jeex waaye Boy Niang boo jëlee tànkam fa la gën a mën a Modou buñ jëlee Modou Lo boo jàppee ngembam dugg ci biir combat am. waaye boo ñaax boo tànkam day bëri. buñ buñ jëlee tànkam mu daanu de. Hmm? jëlee tànkam mu daanu de jël tànk. tànkam yi kay ak wetam. mais seen samba fin bi Eumeu am na ko te Eumeu Sène bërikat la. waaw mais Eumeu Sène du boy nan. la ilaha illallah. ah yow yàlla lim la may mayu ko alaaji Bekaay Mbaye bi yaa moom bokk leen am na lu Bekaay am loo amul am na loo am lu Bekaay am. waaw ma fàlli kumba ndaama tax mooy sama baay de kenn du moom. waaw waaw mais yàlla yàlla da leen a bind yéen ñaar mais yamalewu leen. mais Tapha Kandji pour yow am nga gëm-gëm ni. aywa boo ñu. aywa jile su ma bi tey bu combat dama lay teel wax ne la dem ca laamu jooju wala ca kaw tribune ba laay li ngay wax laak li la wala lépp. booy ñëw maa lay nuyu. boo ñëw maa ngi lay nuyu. booy nag ne ko ci laaj bi rek da ngay ruubee rek. ma ne Tapha Kandji Tapha Kandji fi nga Tapha Kandji fi Tapha Kandji ni nga gëmee boo booy ñëw bu bëri mu daan ko man daf ma jaxal xaram xam nga koy àndal fukki at ak juróom. du benn fan. waaw ba koy bëgg a ëpp ma xam ko ñu àndandoo ñu àndandoo ma ci suukar àndandoo. yooyu san ma préparé ko dem ñu daan ko ma préparé ko dem mu daan waaw kooku war nañ dem ba toll koo xamante ni tey buñ tëddoon ba guddi soo ne ma këpp-këpp ne ma tafaakaan ci booy ñaa ma wax la ci booy ñaa wax la état d'esprit booy ñaa mais mais wax la la bu combat waaw bi mu jëlee Modou waaw non euh, réaction bu normal rek réaction bu normal tabakanji tabakanji xoolal xoolal commentaire bu buzz jële mu jëlee Modou lan la lan la réagiré ndax bi mu jëlee avance su Balla Gaye numéro 2 am na lu mu la waxoon te yow ko mu mu def ko mais bi jëlee avance su Modou ba ci guddi gi lan la la ci njëkk wax. non Modou Lo moom waxtaanaguñ ci. Modou Lo waxtaanaguñ ci bi mu jëlee avance bi bon. réaction bu normal la am rek réaction normale boo xamante ni am contentement parce que dañuy sawar bi bëre ak mbër yu mel ni ay Modou Lo la wala ay mbër yu mel ni ay Balla nga xamante ni buñ ñëwee ci làmb ñoom duñu réservé wu te ba pare buñ ñëwee ci làmb duñu doon mbër yoo xamante ni dañuy wor comme nga dañuy sawar di bëri ak genre mbër yooyu nga xamante ni soo parewut physiquement dañ lay weer kon kon looloo tax ngeen dem dindi poids bi am mobilité boobu noonu di liggéey maigre cent pour cent. duggaguñ ci préparation Modou. mais dugg leen ci mais boo ñëw amul poids dafa wàññeeku. Hmm? te gis nañ da ngeen ne mise wu ci dem di jàngi xeex chaque jour lan moo tax boo ñëw ak saa jàngu leen ci combat bi mais dafa mise wu ci préparé wu ci wàllu xeex. macha booy xaaral pare ñu ñu yegg ma jox la kii non non non non Fadam nag booy naa commencé gul ki commencé gul commencé yooyu commencé gul yooyu da ngay mbalak rek. waaw bula la neexee waaw. waaw kon baax na bu suba. bu la koo publier mais xam nga gars yi. mais waaw. xam nga xam nga bës moom damaa ragal ne maa ngi moom dinañ mës a dem ci yoon. waaw loolu xaar ko man ak moom dinañ mës a dem ci yoon. mais gis nga gis nga soit muy muy mod Lo gis naa benn waay boo xamante ni moom revanche booy naa saakees rek la yàkkamti non loolu moo moom may nag loolu loolu combat deux cent millions la waaw mais man combat dina fekk may nekk ca kaw tribune ba waaye saa buñu bëree waatee may sa xarit mi ci njoobu toogaat ci dënn bi ah? ah non du benn yooyu la ngeen defoon ko def non yow tamit nag jeexaat foo farab doom delloo ko waaw surtout waaw bombardier ko wayoon Sa moom Sa Sathies moom li gone yi naan du Thiès mais Sathies moom teewu ñoo nelaw aywa ah ba yeewul Sénégalais yi